nga am dem ci soirée te gars yi duñ la téye ci porte bi comme nga yegg nii gars yi gars yi bàyyi la nga dugg nga yegg tamit war a yegg ci kaw scène bi parce que yooyu tamit day am des fois nga dem soirée gars yi téye ci porte bi des fois tamit nga dugg ba ci biir bi war a ci kaw scène bi gars yi la ndax yooyu mu ngi am sa diggante artiste waaw loolu moom euh, du ñàkk parce que du ñëpp ñemee woyandoog Badou Boy. ah bon. Eh. ci kaw seen. non du ñëpp ko ñeme de jii nii bu fekkee ne soirée bi Badou ñëw na fa war naa bëf yow mi way boo ko ragalee da ngay xëcc kenn ne ko kee bu mu yëg de nañ ko na ko gaa yi ah, ah, bari na fi bari na fi moo tax man du dem en général fo ma woowul quoi du may génn sax lu bari ah, parce que tamit nag xam nga waaw dama leen dàq way quoi ñoom ñëpp. booy da wallahi alazim moo tax du may bëgg ñuy ñuy ñuy may dund loolu quoi. Mm-hmm. parce que duma seen moroom quoi ci côté boobu noonu si. ku mu mën a doon nag quoi xam nga moo tax samay génn bariwul. voilà mais léeg-léeg tamit nga dem ñu teele ci bunt bi mais man yàlla dafa def ne boo ma téyee damay jënd ticket. parce que du ma du ma fa taxaw nit ñi di ma fa romb quoi. parce que sama sama niveau dafa dépassé. foofu waaw nga taxaw fenn ku ne ñëw xam ne dañ laa te loolu bokkul ci classe duma ko def bu ma mënta dugg ma jëlaat taxi ñibbi moo tax du bari yu may génn bu ma génnee daal léeg-léeg five laay jëm wala waali xam hmm, Maria Sine Meysa Bigué nga xamante ne macha allah dafa yaatal woykatu Sénégal ak yaatal ñëpp waatal ginnaaw très bien. dëgg la dafa yaatal euh, ginnaaw noonu la demee quoi. Mhm. waaw mais des fois da nga dem soirée mu ci kaw seenam. si même si di tamit mos na ma waaw mos naa dem soirée mu xam nga tamit mu yaatal ma. waaw kon coow li coow li benn benn ayib seen quoi. waaw coow jur woon ben ay parce que man xëcc benn réeroo tuuti rek. non maanaam man man boog man badu dara du ñaaw sama côté luy ñaaw ci doomu aadama lay ñaaw. mais dara du ñaaw sama côté man du ma ñaawal dara parce que jàppewu ma maanaam jàppewu ma àddina maanaam muy dara quoi. yee mm-hmm. waaw nit moom da ngay da ngay rafetal rek parce que aar moom jaraluma yaa yenn yenn yi quoi. ok bilaay Badou kontaan nañu léegi parce que ñu ngi jëm ci cappaandawu émission bi mais laata ak loolu. bëgg nañ la laaj maanaam yow musique senegal actuellement nii nii nii maanaam yow nan nga ko jàngatee parce que gars yi dañuy wax ne booy woyatuñu ñii ne booy yi kenn xamul lan la ñuy woy ñii ne ay ay ay waaw xam nga ma rafetal kàddu gi kenn maanaam booy woyatuñu daal woyatuñu ñii ne dañuy ambiance kese ñii ne ci sabar kese la ñuy woy xam nga ñii ne jànguñu musique bi ñii ne xam nga xamuñu xamuñu temps xamuñu xamuñu accord xam nga maanaam daal. waaw maanaam daal musique bi daal fi mu ne nii daal bëri na mag ñuy jooy ne bi dafa yàqu yow nan nga ko jàngate waaw ah, loolu loolu moo am c'est vrai. ci bari non am na ñuy way ñu fi way lu neex bari nañ de. na. si am na ñu ngi ñu ngi ci showbiz bi hmm, ñi ñi nga xamante ne waa bari na déggoo mu mën la bari na. non am ñoo xamante ne que euh, mariirandoo lañ jànguñu aar ñoo jékki-jékki rek ah xëy na dañ cee gis succès bi ñu daw dugg si wala lool mais en général aar boo ko jàngul euh, wallahi lazim di nga dem ba foo xamante ne di nga rëccu parce que dina am lu bari loo xamante ne da koy manqué jàpp ne egg nga nga dem say biir naaw la nag di dégaame wala ngay génne fausse note wala ñu way loolu octave ngay def ay grave doo xam yenn mélodie yooyu comprendre nga. Mhm. kon musique dañ koy jàng. koy jàng da koy bëgg ba pare. Mhm. jàng ko mu nekk ci yow tamit aussi. mais du loo xamante ni da koy tricher quoi. ok xam nga ma waxee. Mhm, voilà noonu la demee nag ba léegi ñu ci bari créé tuñu ah, dañuy jékki jël dara rek way ko eh, bëlëfee xam nga nit ñi moom comprendre ñu ñoom na musique bi daw rek ak ambiance beeg yooyu ah, te art tollul foofu quoi. waaw ah, art dafa. laaj ay texte ay wayu doy waar yoo xamante ne xam nga ku gis dina ci yeew xam nga wala mu mu mu mu maanaam nga yedd ko ci mm-hmm. waaw ndax ku ci mel ni sunu mag yu baax ñi ñi fi nekk ñi fi nekkoon ay Thione Seck xam nga ay Youssou Ndour ñooñu ku déglu seeni wax ay Omar Pène ku déglu seeni parole seeni noonu la mais way tam amatul na way tem amatul. problème bi foofu la ne. way tem moo amatul. que mag ñi dañu way ndax ba fin bu ñu génn tem bi du ñu dagaal. ndax wo da ngay gis ko ci ceebu jën jékki saa dugg baaraam non non da nga naan da ngay gis ko woy maafe jékki-jékki <laughs> génn fa woy subu kànje. <laughs> non c'est pas normal <laughs> loolu baaxul. suñu aar bi suñu aar bi. musique nga jooy. non musique kay yóbbu na ba sonn. Ah, mais nag tëgg bi tëgg bi waaw gars yi dinañ xam fi affaire yi féete léegi bientôt bilaay. day defarwaat non musique day defarwaat. ku ci nekk di bëlëfe nii après da nga koy rëccu quoi ah, parce que musique dafay développé wu déjà yaa ngi yow da ngaa ay jamono est-ce que daan nga jékki-jékki gis ay afrobeat. Hmm. Hmm? Hmm. afrobeat est-ce que mos nga koo bàyyi xel daa jékki-jékki rek ñëw sa kanam. wallaay yi di def mbalax afro. mu nice. noonu lay demee ba yeneen ak yeneen ñëw. léegi mbalax sax pour nga déggati ko rarement lay doon gaa suñu culture la mm-hmm. ah mais du fu nekk nga koy nga koy yóbbu quoi mm-hmm. voilà noonu la demee nag. moo tax ma ne ku jàngul musique di nga am problème wala ay way. Mm-hmm. si. wala léegi euh, ñoo ngi si cappaandalu émission bi tey ñoo ngi woon fii Géejawaay yaakaar naa ne ñi toogoon di laajte baara Badou Boy Badou Baara Mbaye Mbërëg Bër. yaakaar naa ne réew mi kenn ko laajte parce que bado ngi nii ñi doon wax ne dafa tukki ñii ne Badou dafa bàyyi woy ñii ne Badou instant bi mu ngi ci leneen léegi Badou leeral na carte gi waaw man mi xam Badou man xam naa ci ci lan la Badou ne mu nekk ndaanaan nag ñi fekk si woon ko fii ci këram euh, géejawaay tamit bëri na euh, lu mu souligné ci wàllu musique bi ak ci li nga xamante ne nii xawoon na réer ci nopp sénégalais yi ci wàllu son yi nga xamante ni da ko woy ñii ne woyu ko affaire yooyu euh, bëri na lum ci leeral wante Badou ñu bëgg la laaj sa carrière maanaam fi mu ne nii yow fan nga toll ci single yi wala album bi fu mu toll wala soir yi li sa kanam daal. waaw loolu dafa mel ni loolu dafa mel ni leer naa ko sànq. Mhm. Ah, man maa ngi ci programme maa ngi ci euh, événement yi. maa ngi waaj yeneen ak yeneen ah, di xaar nag producteurs yi ñu ñëw teg ci loxo waa ah, teewul nag saa bu ñu ñëwee dinañ ma fekk may bay sama waar. producteurs yi amagul ku waaw gisuguma ko nag. waaw loolu tamit aussi quoi. man solo gu solo gu ma sama daal nag dem seet si si si. waaw ah noonu la demee nag mais xam naa ne dinañ ñëw xam naa ne dinañ ñëw parce ah, que maa ngi ci non si si noonu lay demee waaw ah waaw noonu lay demee incha allah loolu moom maa ngi ci maa ngi ci bu baax mhm. ci kàttanu yàlla waaw soirée yi tamit ñu ngi ñu ngi préparé ay soirée après tabaski bi incha allah loolu moom xam naa ne bu yegsee sax dama lay woo ngeen bokk ci affaire yi incha allah waaw yàlla bu soobee suñu incha allah Thank you.